nga baal ma. Mhm. ma gërëm ak sant Youssou Ndour. Mhm. dafa woo këram ñu toog waxtaan euh, lu toll ci ñaari waxtu. Mhm. ñu toog waxtaan mu ñaanal ma. mu ñaanal ma encouragé ma. ne ma lii ngay def man dama ko gëm. en tête à waxtaanu kilifa wax waxtaan ak kilifa sax doo ko wax. mais ñaanal na ma. ñaanal na ma gërëm na ma. Mhm. sant na man it ñaanal naa ko. gërëm naa ko. Mhm. sant naa ko man ak Youssou Ndour. 2000 mhm. ba tey. may présenté seenam. dëgg la. album bu mu génnee 2000 ba tey maa ko publicité. lu ma sant dinaa ca liggéey. incha allah mais tey dama màgg màgg goo xam ne damay dem rek liggéeyal sama bopp. dëgg dëgg la man ak moom. déggoo nañu waxtaan nañu. jàppoo nañu jàmmoo nañu. Mhm. amuñu benn benn benn benn problème. dëgg la waaw c'était bon à savoir ndax xam nga nit ñi duñu xam. waaw amee xam nga sama yaay dafa sonn nit ñi waa rumeur yi sonn mu ngoog samay rakk sonn samay mbokk sonn sama soxna sonn mais dama bëgg ñu xam ni. dara amul fàttalikul ba ñuy jógee wal fajiri. ah boo foo gënoon mel. <laughs> lu ne dégg nañ ko ci mbedd bi dëgg la nit ñi mais il faut les comprendre aussi yëg-yëg la. yëg ko ak xam nga ku tàmm yenn voix yi ah. Mhm. tàmm Ndoye Bane tàmm Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de presse bi ah. Mhm. loolu il faut ngeen ngeen sentir yëg mais nit ñi. Mhm. dañuy dañuy dañuy perte de vue. ki ñëw ak li tax mu ñëw. Ndiaye ñëwu fi pour neexal baat de. njaboot ga mu bàyyi jëkkër ga. ay loxo loxoy kese du fa dellu. et cetera keneen noonu donc il faut que ñuy comprendre. waxuma ni. neex nañ ñëpp mais il faut que ñu comprendre même tàqalikoo yi man j'ai dit dans une interview bi gars yi ñee tàggu ma dafa ma bett parce que ànd bi dafa yàgg ba mu mosuma xalaat ne tàggoo dina am 97 mhm. 2018 c'est pas deux jours mais yàlla lu mu jeexal mu jeex yàlla lu mu recommencé mu recommencé wu mhm. yàlla lu mu tuddee am mhm. mais nañ koy rafetal pour gisewaat bi ëllëg àddina boolu ceeb la boo lekkee defaral ba mu jekk tëj ca teraanga ndax xiif day dabee te boo ko jaxat-jaxatee doo mën a wàññi ko lekk ca ko en toute chose nag man nag yow ak keneen mhm. nan koy rafetal ca mhm. bàyyi jóge fii taxaw fële di xas fa fa nga jóge mhm. wala ña ne ca fa nga jóge di la xas ca xamuñu lu tax nga dem lool du wax ja ku ne fa nga ne seenu asamaan jarul buuxante ku ne fa nga nem na nga fa am sa wërsëg mais nga dóor waar xam ni loolu liggéeyul doo ko fayee ku kese loolu mhm. mooy wax ja rafetal gi Boubacar Youssou Ndour Youssou Ndour ñoom di gis nga bi muy dem ak po bi ñu def GFM c'était trop beau ça mhm. loolu mooy àddina mhm. parce que yàlla waxul kenn dara de waaw mën ngaa mën ngaa football benn bool suba xiif dab la doo mën a waññeeku dëgg la waaw nañ ko rafetal te aller vers l' essentiel. na mm. ku ne liggéey wut sa daje bi sax léegi léeg-léeg door door daal mun munu cee ñaan. non terrain moom ah, ah non non terrain bi nag buñ leen may dara de. ah non terrain bi nag buñ leen may dara de. non xam nga Real jo boy bi. xam nga Ronaldo jóge na Real. waaw waaye su daje gaaya bi waa waa Real. Eh, boo rombee buntu këram ñu ne tey la rajo bay ubbi. waaw bu Bakar di waaj a xëy. waaw ay xale ñu bënd pëne mu tardé. pëne <laughs> oto yi <laughs>